غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت رب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا رب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين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 ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى lahu ma fi samawati wa ma fi lardi wa ma baynahuma wa ma taxta sara wa in tajhar bilqawli fa innahu yaclamu sirra wa axfa الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى qaala hiya asaaya atawakka'u alayha wa ahushu biha ala ganami wa liya fiha ma'aaribu ukhra qaala alqiha ya muusa فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تقف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى qaala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli haaruna axi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kasira wa nadhkuraka kasira innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya Musa ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فاقذفيه في اليم اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتكون هل أدلكم على من يكفر فله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين summa ji'ta ala qadari ya Musa wastana'tuka li nafsi izhab anta wa axuka bi ayati wala taniya fi zikri izhaba ila fir'auna innahu tagha فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى sadaqallahul azim الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو الله ما في السماوات وما في الأرض يعلم سركم وجهركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتي تأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا كم أحلقنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مكناهم في الأرض ما لم نمكن ممكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم لهم ما كانوا يفترون وله ما في السماوات وما في الأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاتر السماوات والأرض wa huwa yut'am wa laa yut'am qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa laa takunanna minal mushrikiin qul inni axaafu in asaytu rabbi adaaba yawmin aziim من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاثف له إلا هو وإن يمسسك بغير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى صدق الله العظيم الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ الذي الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل bëggee sa bopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nii comme ni nga bëggee sa bopp. asalaamaaleykum wa rahmatullah. لإيلافي كل إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومنعهم منها بسم الله bala may nelaw ñaan bi la ñaan bismika allahumma amutu wa ahya rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سعوا الذين هم يراعوا ويمنعون الماء بسم الله الرحمن الرحيم saayu ma yeewoo ñaan bi laay ñaan alhamdulillahi alladi ahyaana ba'dama amaatana wa ilayhi nushuur ta ci moom laay delluwee asalaamaaleykum wa rahmatullah. bismillah. balaa may nalaw ñaan bi laa ñaan bismika allahumma amutu wa ahya bismillah qul huwa allahu ahadu allahu samadu lam yalidu walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadu قال وانا رسول الله ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم يلك يلد الهوى أكبج خيركم نغنتي malla allah mar qur'ana moytidango qur'an wa allama o tedi ko jangale sarifun siifu waxtaan bu te tàngoor bismillahi rahmani rahim ilaafi Quraysh ilaafihim liqlata sitaani wasayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذا وأخلى رسول الله يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يلق لدنه والأقمة خيركم لجنسه من تعلم القرآن مرشدا القرآن وعلمه صدق جنجل حديث صريف واختار تدعو bismil bismillahir rahmanir rahim ilaafi Quraysh bismillahi rahmani rahim iza jaa nasrullahi wal fathu wala aytan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba bismillah haala waxna nasrullahi inanta yàlla wi sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu yàlla dooleel xéewal ak mucc xayri ku gëm si man allama alquraan moo si jàng alquraan ba allamahu te di ko jàngal sarifun sadifun ak taagu teggangoo sadaqallahul aziim rahmatullah الخيرات واساتذة الخيرات وضيوفنا أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي أمين جاي أتكلم في معهد الإسلام الخاطب فضيل بكر أريد أن أقرأ لكم ما تيسر لي من القرآن الكريم وحديث النبوي wasrifu auzu billahi min alseytani irajim bismillahi irahmani irahim laa uqsimu bi yawmi alqiyama wala uqsimu bi nafsi lawama an yaksabu linsanu an lam najma izama bala xaadirina ala an nusawiya banana bal yuridu linsanu liyafjur amama yasalu ayana yawmu alqiyama fa ida barixa albasar وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان بما قدم وأخر بل الإنسان ألا بنفسه بصيرا ولو ألهى ما هزيرا لا ترهري به لسانك لتاجل به في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسرم يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل أن أسرم يدخل نرى فهال الفم والفرح رواه التلميذ jëlee nañu si abi Hurayra te yàlla ko yàlla gërëm mu wax ne laa jëf na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an lan moo ëpp lii dugal nit àjjana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu leen ne ragal yàlla ak rafet ji ko ñi laajaat ko yonent bi sallallahu alayhi wa moo ëpp lii dugal nit safara mu tontu leen ne jëmmi ndax mooy jëndee tàdd bu ñaaw ak pay ndax mooy njaaloo kon góor yi na ngeen takk seen tubéy ba mu dëgër sama mbokk jigéen yi na ngeen takk seen sër ba mu dëgër xaari jëkkër yonent bi sallallahu alayhi ba tey ragal yàlla foo mu toll foo mu def lépp fa lu bon na fa def lu baax ndax lu baax day far lu bon mbokk na jëfalante nit ñi si rafet jikko mbokk yi jikko bu rafet moo tax ba nit ñi nawlu jikko bu bon moo tax ba nit ñi di la nawlu maa leen di tàggoo foofu ba beneen yoon wa kullu amin wa antum bi xayr wasalaamu aleykum wa wa barakaatu بالله من الشيطان الرحمن الرحيم كرم ربك الذي على اقرأ وربك الأكرم إنما الإنسان بأكرمه كلا إن الإنسان ليطغى واستنى إن إلى ربك الذي عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على هدى أو ألم يعلم أن الله يرى كلا إن الإنسان ليطغى أن إن إلى ربك آبائي وأمهاتي وأساتذة الكرام وضيوفنا أعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي داود جال أتعلم في معهد إسلامي العاج فليل باكر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 ورجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نئر في نعور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين عين يسير ذرني ومن خلقت وحيد وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومعدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيد سأرهقه صعود إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا يسار إن هذا إلا قول بصر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تقي ولا تزر لوقة للبصر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وجعلنا عندهم الله في للذين كفروا يستيقين الذي أوتوا الكتاب يزدد الذي آمنوا إيمانا ولا يرتب الذي أوتوا الكتاب والمؤمنون ولكل الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يدل الله من يشاء ويهدي من يشاء ويعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر صدق الله العظيم وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال qaala nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam lan tadxulu jannata xataa tuminu wa lan tuminu xataa tahaabu alaa adlukum alaa sayin iza faaltumuhu tahabatu qaalu maa huwa ya rasulallah qaala afsu assalaama baynakum rawa bay'i fi shu'abil iman jëlee ne si abi hurayrata yal na ko yàlla gërëm moo wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doo leen dugg ajjan lu dul ngeen gëm yàlla gëm bu sellal te mu ne leen gëm yàlla lu dul ngeen soppante yërëmante dimbalante si seeni biir yonente bi sallallahu alayhi wa wax sahaaba yi ne waa bëggoo leen ma wax leen loo xam ne soo leen ko defee ngeen soppante sahaaba yi ne ko waaw waaw yaa rasulallah bëgg nañ kaa xam mu wax leen ne si wal leen jàmm si seen diggante koo tasal nga nuyu ko moo xam-xam nga ko wala xamoo loolu day tax ngeen soppante yonente bu wax na ne ñaari julli bu dajee ñu nuyante joxante loxo balaa ñuy jóge fu ñu taxaw yàlla jéggal leen seen barkaat maa ngi leen tàggoo foppa benn yoon wa kullu ammi wa antum bi xayrin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ۖ وأرسلنا السماء عليهم مدرا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينزعون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فسووا فاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاتر السماوات والأرض فاتر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنهم يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بدر فلا كاثف له إلا هو وإن يمسسك بغير فهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم xaaral bala moo jàll salaamaaleykum xam ngeen ni alquran dafa am nu muy def ci doomu aadama su fekkee ne kàddu ga muy bàyyi ko ci xol lay jóge moo tax ci xol rek lay dugg ku dégg xale bi ni mu doon jàngee da ngay defee ne ab naaree jàng yàlla yàlla barkeel sa dund wax dëgg yàlla ku déggati alquran ñu di ko jàng sunu borom dafa wax ne nañu xerawlu nañu noppi te déglu ko may ko nopp kon bu ñuy jàng mu ngoog séedéeleem macha allah waaye jàmbaar la ci alquran la lool lool ba jéggi dayoo kon yal na yàlla sàmm ko dañ leen di ñaan rek alquran ju mu neexee nii ngeen doon dégg su ngeen ko dee déglooti na ngeen may nopp ki koy ki koy jàng nangeen may nopp mooy ngeen noppi te déglu ko na ngeen ko may nopp te déglu ko loolu ci la ngeen di mën a amee yërmande yàlla waaye ci la leen yàlla di gërëmee kon yàlla ñu ko yàlla boole defal barakallahu fikum ñu ci topp ngeen mën a def taaliqaat yi am am am am loolu yaa ko moom hmm? abai ummahati wasatizatul kiram wa duyufana aiza assalaamu aleykum wa wa barakatuh ismi awa jàll atan la mun fi maqad lislami elxaas fadilu mbàqe uridu an aqraa lakum mata yasarali min alquranul karim wa xadis nabawi asarif auzu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahman xabasa wa tawalla an jaahul ama wa ma yudrika lallo yazakka aw yazakkaru fa tanfaxu zikra أما من استغنى فأنت الله تصدى وما عليك ألا يزكى أما من جاءك يسقى وهو يقسى فأنت أمت له كلا إنه تذكرة فمن سعى ذكر في صحف مكرم مرفوعة مرفوعة متاخرة بأيدي سفرة كراما بارك الختل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلق من نطفة خلق فقدره ثم سبيله يقصره ثم أماته فأقبره ثم إذا انسى أنصره كلا لما يخدم ما أمره فلينظر الإنسان إلا تامن أنا سببنا الماء صبا ثم سحقنا الأرض سخا فأنبتنا فيها خبا وخنبا وخدبا وزيتونا والنخلة خدايك وخلبا فاقية وأخبا متاعا لكم ولأنعامكم إذا جاءت الساعة يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة متبصرة وجوه يومئذ عليها خبرة تلقى عثرة أولئك هم كفرة فجرة صدق الله الذي وفي الحديث عن أبي ساخد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليخير بيدي فإن لم يستطع فبلساني fa in lam yastatix fa bi xal xaldi wa zalika xad xaful iman rawaaw muslimu jëlee nañ saa bi saaxidin mu wax ne yeneen tabi sallallahu alayhi wa sallam nee ni képp ko gis si yéen lu bon na ko dindi si loxoom su ko mënulee na ko dindi ak làmmiñam su ko mënulee na ko mettelu ci xolam loolu moo gën a neewi si gëm yàlla yàlla wax na ne si alxuraan ne naam si yéen xeet oo xam ne danañ woote jëm su lu baax su ndigle si digle si njekk tere lu bon yàlla nee na ñoom ñooy texe si àddina ak àllaaxira sama mbokk jigéen yi bàlle maak tabaski bu jege ku nekk si yéen dara dajale juróomi far boo waxee mën a bëgguma leen dama leen di mbaraan ndax benn góor mënul régler samay affaire tabaski damay jàngale doylu ak muñ suñ maam ibrahima alayhi wasalaatu wasalaam dafa yéenoon ren di doomam ismaila doomam bi muñ nangu ndigalu pàppam tabaski jaamu yàlla la te sant yàlla la di lu feeñ ak lu nëbb bëgg tabaski si neexul lekk wala laanu sedd wala sol yére yu rafet bëgg tab nit bisu tabaski nit ki fexe yàlla jégal ko ay bàkkaaram mu goral ko safara mu dimbali ko mu topp ay ndigalam mu bàyyi ay tereem maa ngi leen tàggu foofu ba benn yoon wa kullu amin wa antum bi xayr wasalaamaaleykum أبائي ومخاتي وساتذة كتابي

والسماء ذات البروج ويامن وصعد كنت أسعى وقدر النار ذاته بسمع أو الذي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 إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل أركأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى qaala xuzhaa wala taqaf sanuiiduhaa siiratahaa al-uulaa wadmum yadaka ilaa janaaxika taxruju baydaa'a min gayri suu'in aayatan uxraa لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم الملعوبين الكرام يسرني أن أقف أمامكم اليوم في عيدنا هذا المبارك لأتذكر معكم من أخلاق الرسول الإنسان salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yéen mbokk jullit yu tedd yi may déglu ginnaaw bi ma sante yàlla mi nga xam ne moo ñu digal ñu roy suñu sang bu tedd bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi ma ko wax naa moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aji nekk la ci ay jikko yu rafet te màgg maa ngi julli di sëlmal ci àndalim yu baax ak waa këram yu laabi maa ngi leen nuyu kenn ku nekk ci yéen ñu yóbbu lislaam ma di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. di leen xamal ni kontaan naa lool ci taxaw gi ma taxaw seen kanam si bu tedd bi ngir fàttaliku lenn ak yéen ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak melokaanam yu rafet yi ndax suñu borom moo ñu wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana nee na jullit ñi am ngeen si Mustafa sallallahu alayhi wa sallam royukaay bu rafet moo tax suñu yaay aïchatu ummul muminina radiallahu anha suñu ko musaana laaj lenn si jikko yonent bi sallallahu alayhi sallam lu muy tontu mooy kaana xulquhu alquran jikko yonent bi sallallahu alayhi képp ku bëgg xam seetal ci alquran lépp loo si gis si jukka yaaram moom la jikko woon moo tax buur yàlla mu kawe bi dëkk julli ñi sa alquran ne wa ma aataakum rasulu faquduhu wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lu leen seydina muhammad sallallahu wa sallam indil jàpp leen ko lépp lu mu leen tere bu leen ko jege seydatu anha keroog boobu doon fiir wax suñu borom wax ci alxuraan ne qul in kuntum tuhibuuna allaha fattabiuni yuxbibukum allah wa yaxfir lakum zunubakum dafa waxoon ne law kaana saadiqan la ataatahu inna al liman muhibu l mutia nee na képp ku ne bëgg nga dëgg si moom dafa war a topp ndigalam bàyyi ay tereem mbokk yi ñaawteef tasaaroon na ci àdduna bi ñëpp jaaxle tiit fii ci senegaal ñoo ngi xeex góor jigéen noppeeguñu ay xale yu jigéen dem Dubaay di jaay seen bopp di seeg ay xaj di seeg ay golo ñu nangu ñu takk leen ay seen di leen wommat niki xaj dugal leen ci ay kaaf di cabine seen kaw mel na duusu cabine ba noppi ñu lekk cabine ya ngir xaalis allahu akbar lii ñaana ci deru senegaal ana doylu ana kersa ana maanu mbokk yi kilifa yi ñu yaakaar ci politique ñu war a jiite réew mi ëllëg suñu leen invité ci télévision yi wala ci réseaux sociaux yi da ngeen rus ci ay kàddu yu ñaaw ak ay saaga ak ay xaste di sosol gor bu seen wecc taxul yëgul yar amatul sutura amatul jombool amatul job amatul senegal juróom jikko la nga xamee ba dëkk yépp nawle ngor jom kersa jàmbar teraanga oustaz yu nekk si télévision yi wala ci réseaux sociaux yi war a jàngalaat nit ñi jikko yonent bi sallallahu alayhi fàtte neen yàlla fàtte yonent bi sallallahu alayhi di wax lu leen neex si diine ji di xëccoo star ak buzz kenn ku nekk jàpp jàpp ne moom mooy star bi waaw fu ñu jëm mag ñi taratuñ xale yi xale yi taratuñ mag ñi ku nekk sa portable mooy sa kilifa te paaka ñaari boor la am na bu baax am na bu bon ku nekk si ñoom sëgg sa portable amatul benn liggéey lu dul Facebook youtube instagram whatsapp tiktok mbokk yi yonent bi dafa wax ne ittaqillaa xaysuma kunt ragalal yàlla fépp fa mën a nekk xaaliqi naas bi xulqi xasanin na nga jikkoo nit ñi jikko bu rafet at atbiu sayyi'atal xasana tamhuha foo defoon ñaawteef nanga fa def lu baax ndax lu baax day faral ñaawteef mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund yépp jàngee la ba nu fiy jógee wuy ji boroomam moo tax jàngale na julli di nekke ak boroomam ak digganteem ak yonentam ak digganteem ak moroomu nitam moo xam way juram la wala doomam wala soxnaam wala jëkkëram wala mbokki njege ñaaleem wala dëkkandoom moo xam yéeféere wala jullit ba ci bàyyi may sax am na ay tegg yu ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indil ñu war koo jëflante ak ñoom lu ñu mën yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni meloon ci muñ ak kersa ak sàmm ak nangoo liggéey di dundee ñaqam ak ni mu tawee ak ni mu woyofee bëri yërmande ak ni mu ñemee te am fit mësul tooñ te ku ko mësa tooñ mu bàll mësul fa yaantoo moom yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne moom Moustapha yàlla dafa ko yónni ngir mu mottali jikko yonent bi sallallahu jikko yu tedd yi indama bu'istu li utammima maxaarimal axlaa li ma waral Sëriñ Tuubaa xool ko ba yàgg mu ne ko huwa akmalul wara xalqan wa xulaqan daharan wal mislu qattu lam yura walam yura fi mu ne ko mbindeef yëpp yaa ngi ci gën mat mbind moo tax ku mel ni yow mësul feeñ te du mës a ci mbindeef yi kon mbokk yi nañ bokk jàngaat jikko Yonent bi sallallahu te di ko jëfee lu ñu mën ndax suñu boroom te di ko jëfee lu ñu mën ndax moom moo mën a jëriñ àdduna ak àllaaxira yàlla nañu yàlla sobbuloo Yonent bi sallallahu wa sallam ak waa këram te xiir ñu soroy ay jikkoom maa ngi leen di tàggu foofu beneen yoon incha allah wa kullu aamin wa antum bi xeyr wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh biir ina bajal ataalum fi manhaj islami alhaji fadilu mbàkke uridu an aqraa lakum ma tayassara li min al-qur'ani karim wa hadi sunnabiyyi sharif a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim was-samaa'i zaatil buruj wal yawmil maw'ud wa saahidin wa mashhud قتل أصحاب الأخدود النار ذات الودود إذ هم عليها وؤود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين سهود وما نكمن منهم إلا أن يؤمنون بالله العزيز الأمين الذي له ملك السماوات والأرض والله كل شيء صحيح إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها أنهار ذلك فوز كبير إن بشر ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذا الهرس المجيد فقالوا لما يريد هل أتاك حديث جنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو برهان مجيد في لوح محفوظ صدق الله الذي وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم حنسل رد سلام وإيادة مريض واتخبار جنائز وإجابة دعوة وتصميت الحادث متفق عليه jëlee nañ ci Abi Hurayrata yal na ko yàlla gërëm mu wax ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne akul jullit mu dox diggante moroomi jullitam juróom lañu bis njëkk mooy delloo nuyoo maanaam su la waxee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa waaw waaleykum salaam wa rahmatullahi barakaatu ndax nuyoo sunna la fay nuyoo farata la ñaareel bi mooy seet ak feebar ñaanal ko may tox foofu dox la ñetteel bi mooy gunge néew maanaam nit ku fi mu faatoo boo fexe bay fekkee jullee ba ak rob ba di fekkee jullee na ak rob ba di am ñaar caabi benn bu ne méngu tollu ak jabalu xuut ñeenteel ba mooy wuy woote te ku lay woo dana jox baam wax la juróomeel bi mooy dokkeel aji sóoli maanaam ku sóoli ma alhamdulillah wax ko yarxamatakallaahu tontu ma yax diyakumullahu wa yusli baalakum maa ngi leen di tàggoo foofu ba beneen yoon wa kullu amin wa antum benn wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim هل أتاك على الإنسان هن من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا إنسانا من نطفة أخشاج نتار فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه سبيلا وإما شكورا وإما كفورا إنا أعطينا للكافرين سلاسل وغرارا وسائر إن أبرار يشربون من كأس كأنه مزاجه كفورا حين يشرب به عباد الله فاجر تاجرا صدق الله العظيم وبهدي عن عبد الله بن معاذ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يقيمكم ولا يقوم وما كان في حاجة عجيته كان الله في حاجة وما فرج مسلما كباتا فرج الله ولو كباتا من كروبة يوم القيامة وما ستله مسلما ستله الله يوم القيامة وما ستله مسلما يوم القيامة jëlee nañ ci Abdullahi inoma yal na leen yàlla gërëm wax na ne jullit fu mën a nekk jullit mooy mbokkam bu ko tooñ merekum tax bu doo ko dimbali képp ku taxaw mbokkam si aajom yàlla na la taxaw si aajom yowmal xiyaam képp ku wutal mbokkam liggéey na nga ko wutal su feebaree nga jënd ko ordonnance su amulee lu nga ko jëndee nga fayal su amulee lu nga ko fayal jëndee nga jëndal ko ko képp ku képp ku jënd képp ku wut képp ku fayal mbokkam képp ku jëndal képp ku fayal mbokkam ku kuñ ko pégu raam nga fayal su nga ko bés ba courant nga fayal ko fa téeram su nga coupé ndoxam nga fayal ko fa téeram sa mu les dépense nga joxel ko ko moo gën muy war muy war di yalwaan képp ku teggil mbokkam njaaxare yàlla na la teggil njaaxare yombal xiyam képp ku suturaal mbokkam yàlla na la suturaal mbokk yi li xew si jamono bi dafa jaaxal nit ñi nag kees amatul jom amatul ngor amatu sutura amatul lu la nit xamal si yow mu xawi sa sutura mu xam mu xam si vidéo la wala mu xam si yow dara wala mu dégg si yow dara wala mu gis si yow dara lu mu xam attan na du ko si téere mu wax ko fa baa sax YouTube wala TikTok mu xawi sa sutura te kooku borom njaboot la te dafa am famille rawatina ñuy politique kàddu yi ñaaw la génn ba képp koo dégg fat say nopp waa damay laaj ana yërmaane ana sutura xanaa si yaram bi dawatul yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne am yenent bi sallallahu alayhi waxoon na kenn ku jëfam tax mu dugg àjjana saxaaba yi na ko waaw yaa rasulallah ba si yow mii mun ko waaw ba si man mii lu du yàlla muur yërmaane yal ma laan nañ yàlla yërëm suturaal ñu maa leen tàgg foofu beneen yoon wa kullu aami antu bi xeyri wasalaamu aleykum wa والساتذة الكرام وضيوفنا أعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي فاطمة سلم أتعلم في مقاعد إسلامي الذي فضيل مكة أريد أن أقرأ لكم ما تيسر لي من القرآن الكريم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 خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجل لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجم والأرض ذات الصدم إنه لحول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهمهم رويدا وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حال حال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي أعمال أحب إلا الله تعالى حال الصلاة في وقتها قلت ثم أي حال بر والدين قلت ثم أي حال الجهاد في سبيل الله متفق عليه jëlee nañu si Abdoulaye Masoudi yàlla ko yàlla gërëm ma ne ko laajoon naa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bés yan jëf la yàlla gën a bëgg mu ne ma julli si waxtu ma mu dab si mu ne ma baax si sa ñaari wéyjur ma mu ne ma jihaad si yoonu yàlla وليلا إن لك في نهار سبعا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمأرب لا إله إلا هو فاتخذوه وكيلا واصبر إلى ما يقولون واهجره هجرا جميلا وذرني والمكذبون قل نعم صدق الله العظيم آبائي وأمواتي ورثاتي وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum rawal muslim jëlee nañ ko ci abi hurayrata yàlla na ko yàlla yërëm moo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla du xool seen jëmm te du xool seen melo dina xool seen xol ak seen jëf mbokk yi yàlla subhanahu wa taala jëmm nit ñi amalu ko solo waaye moom yàlla lu ko yittee mooy xol ak jëf maa ngi tàgg foofu ba beneen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 Bye. ciao alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin ilmakin wa ala alihi wa ashaabihi zawi ridwan wa tamkin amma baad ayuha almuminuuna walmuminat uhayikum fi hadihi almunasabati addiiniya wa aqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk jullit yi may déglu gannaaw bu ma sante yàlla sama borom bu màgg bi julli ci suñu sang bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa ak ji këram ak saxaabam yu baax ya maa ngi nuyu ku nekk ci sa tur ak ci sa sant nuyoo bi ab jullit war a nuyu mbokku jullitam te moo di aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu li leen bëggoon a fàttali moo ngi jëm si fadailal qur'an mooy ngëneelu qur'an qaala taala inna haza al qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashira almuminina allazina yacmaluuna salihat anna lahum ajran kabiran suñu boroom nee na xam leen ni téere bii di alxuraan dafay dimbali jaam bi nga xam ni moo ngi koy yittewoo te di ko jàng fu mu toll ba teg ko si yoon wu jub te moo di siraatal mustaqim ba noppi muy bëggal jullit yi nga xam ni foo leen mën a fekk ñoo ngi def lu baax yal nañ ko yàlla defal te defal ko mboolem jullit wa qaala Mustafa sallallahu alayhi wa sallam fi xadiisin rawaahu abu daawuda man qaraa alqur'ana wa amila bima fihi albasa allahu walidayhi taajan yawma alqiyamati daw uhu ahsanu fi daw i samsi fi min du min buyuti dunya fa mazanukum billadi amila bi haza yonent bi sallallahu alayhi wax na ci benn xadis boo xam ni muaz ibnu anas moo ko nettali mu wax ni képp ku jàng alqur'an yàlla dimbali ko ba lépp lu mu digle mu def ko lépp lu mu tere mu bàyyi ko ne suñu borom digal na leen fay gu rëy bu ëllëgee yàlla nañ ci yàlla boole mu wax ni képp ku jàng alquran bu yowmal qiyaamee yàlla dana solal ñaari waajuram mbaxane buur yow waa àjjana di sol nga xam ni leer gu muy àndal mooy gën a foor leeru jant bi bu tiimee kërub àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di laaj saxaaba yi leneen waaw su fekkee ñaari waajur ñooy am loolu comme moom mi ko doon jàng lan lay am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne inna alquluuba tasda'u kama yasda'u alhadid fa qiil ya rasul wa ma jala'uha fa qaala tilawatu alquran wa zikrul mawti nee na xol day xomaat ni weñ bu ñuul di xomaatee saxaaba yi daal di koy laaj ya rasul la moo koy dindi mu tontu leen ne jàng alquran ak fàttaliku dee yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ba tey ne afdalul ibadati ummati tilawatul quran ahrajahu abu nuaymin fi fadailal quran nee na jàmm yàlla bi gën ci sama xeet mooy jàng alquran te ñuy jàng alquran ci àdduna bi alquran dina leen ramu bu yomal xiyaame ba kenn si ñoom du dugg safara yal nañ ko yàlla bu defal te defal ko mbooleem jullit ba kenn si ñoom du dugg safara yal nañ ko yàlla defal te defal ko mboolem jullit waaye mbokk yi ma laaj leen ndax jàngkati tubaab yi lu ñuy am ndax ndongo daara bi jàng alquran wala arab ndax am nañ ko xam ngeen ni tontu li mooy déedéet ndax koo xam ne du jàng waxtu suy jàngi kenn du ko solal lu set léeg-léeg sax mu def tànku neen te su ko ustaasam laajee ab saak ñu ne waaw daara ab saak ustaas fuy naa waaye xaar ma seetal ko saag yi xale yi doon jàngee daaw te bu bi deewee balaa ñoo fay oustaz dañuy lijjanti seen mbir ba noppi seen xel door a dem ci oustaz ba tax na ko yéen mbokku jullit ñi képp kuy doxalee nii su ne fonk na alquran ay mbiram mën naa seetaat mbokk yi nañu fonk jàngum alquran ndax ku fonk daara fonk ñu daara fonk ndongo daara dangay mel ni xaadimul quraan mu diiru seniko abdullahi dia xafizahullahu wa raahu jël na ay million yu bari jox ko ndongo daara jël ay toni ceeb jox ko daara tabax këru alquran jox ko sëriñu daara kii jàmbaar la yàlla na ko yàlla sàmm guddal ay fanam wéral ay cëram mbokk yi nañu fonk alxuraan nañu fonk daara ndax ñu ñu roy ci Sénégal te fonk leen daara leen formé daara moo formé kilifa gu mel ni El Hadji Omar kilifa gu mel ni El Hadji Malick kilifa gi mel ni Serigne Touba ak maam Limaamu Laay ak maam Buum Kuntam bu Njaasaan ak Serigne Abdoulahi Niass sa Kaolack ak ñeneen ak yeneen yal na yàlla def si ñun dégg ak topp te def ko si yéen wa kullu aamin wa antum bi xayrin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu takbir takbir billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim walfajr walayaalin ashr walshaf'i walwatr wallayli idaa yashr hal fi daalika hasabun lidhiij alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi aadi irama daadi maadi allati lam yuklak mithluha fi l-bilaadi وثمود الذين جاءوا بالثور بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين اتهوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فتب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليهم رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون كراسة أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملأ شفا شفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يشق وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئنين irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadxuli fi ibadi wadxuli jannat sadaqallahul azim abai wa ummahati wa asatizatul kiram assalaamu aleykum wa rahmatullah assalaamu aleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah يقتلوني جدا أغفى أمامكم ليذكر أمامكم حديثي اليوم يتملكم من علامات النفاق سيدنا محمد على آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا بان أغلق وإذا أؤتمن خان متفقنا عليه ينتمي بها أكثر يا يميدهم ak suñu gan yu tedd yi maa ngi leen di nuyu nuyu lislaam te moo di asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi am kontaan mag ci taxaw gi ma taxaw seen kanam ngir ñu leen ci wax yonent bi sallallahu alayhi mu jëm ci mandarga yi naa fekk am sallallahu alayhi wa sallam nee na mandarga yi naa njëkk mooy idaa xadasa kasab naa fekk saa toogee jotaay du wax dëgg day mën jëw mën sos mën a yàq te yàlla ñu ci yàlla musal ñaareel ba mooy wa ida waada axlafa su la joxee rendez-vous mu fóote tas sa yaakaar yàlla ñu ci yàlla mu tëj ñetteel ba mooy wa ida urtu mi naxaana moo bëri ci réew mi léegi koo wóolu jëflante ak moom ak lu mu mën a doon nga am si moom confiance mu war di yàq nit ku def waxul di yàq gor ñi di yàq ñu baax ñi di tas kër yi yàlla ñu ci yàlla musal mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kër jikko yi xetu aljanna sax du la xëy dañ defaraat jikko yi defaraat toog ay xam ne àdduna yàggul dara yàlla ñu yàlla may dégg ak toog maa ngi leen tàggoo ba salaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim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 dee leen newal seen biir ndax ngeen bëggante. yaayam nu mu tuddu Aminatu bintu Wahb nu mu tuddu Maryamu Karama ci benn bis dafa sant ci fukk ak ñaar si weeru kam yéen teg na am na papa déedéet moom ko def ba maamam joxe benn yaayam kan banam ko Alimatu Saadiya moo ko ren fal mu faatu ba diina foofu la faatoo yal na la yàlla fay معكم يا أمنة معكم سام يا يوسف معكم فجأة من الجبه لا حاجة من بكا كان لا حاجة كونا كونا كونا ñetti yoon jëmee ñaata yoon la ñetti yoon bëgg ñaata yoon la ñetti yoon anam ñaata yoon la ñetti yoon cinyateonna ñetti yoon bopp ñaateonna benn yoon nopp ñaateonna benn yoon tànk ñaateonna benn yoon amiin ak yow boo jàpp boo jàpp ba julli boo jàppee kër la wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wahdahu laa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 alhamdulillahi alxaayil fi lmuhkam kitaabi waxarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyati l-uulaa wassalaatu wassalaamu ala xayri xalqillaahi seydina muhammadin xaayil maa taraktu min ba'di fitnatin wa adarru ala rijaali min annisaa'i sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabi ulal iffati wa ridwaan amma ba'd ayyuhal ixwata wal axwaat xadiisi maakumul yawma yatahaddaqu an tabarruji waxatulu fil mujtama yéen mbokk jullit yi may déglu rawatina samay mbokk jigéen ginnaaw bi ma santee yàlla mi wax ci téeréem bu tedd bi ne jigéen ñi nañu sax ci seeni kër ba noppi ñu digal leen ñuy sol col bi lislaam te ma a na ay ceddo maa ngi julli di sëlmal ci gën di mbindéef moom mi waxoon bàyyi ma sama ginnaaw fitna bu ëpp lor ci gow góor ñi mel na fitnay jigéen sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal ak ñoñam ak saxaabaam yu baax ya ña di way fekkee di làq seen ngërëmal borom ginnaaw loolu maa ngi nuyu kenn ku nekk ci yéen kilifa yi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu man li ma leen a bëggoon a indi suñ bis bu rëy bi mi ñu jëm ci sàggan gi nga xam ne leen samay mbokk jigéen sàgganee nañ solu lislaam ak yor li mu mën a amal ci xeet wi may naan yàlla leeral suñu xol setal sama làmm ji ba ku nekk si ñun mën a jëriñoo waxtaan wi qaala taala ba'da a'uuzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى na يعرفن فلا يزين وكان الله غفورا رحيما yàlla nee na yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam na nga digal say soxna ak say doom jigéen ak bépp julli bu jigéen dee leen digal dee leen digal ñuy suturaal seen yaram si di ko mbur ba lépp lu ci waru la feeñ kenn du ko gis bu ñu ko defee ba ñu xam leen si noonu ñuy solo kenn bu du leen mënati lor te yàlla ko bëri njéggal la ak yërmande yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg si na sinfaani min ahli naara lam arahuma nee na ñaareel xeet ba ay jigéen ci waa safara lañ ay jigéen la doon yoo xam ne si waa safara lañ te gisuguma leen nisaawun kaasiyaatun aariyaatun nee na ñaari xeet bi ay jigéen la ñuy doon yoo xam ne dañuy bari ay yëre lool waaye ku ci sol ba génn nga defee ne dafa rafet naa col gu bonte te ñaaw lu ëpp si jigéen ñi dañuy xeesal bay wextaale ca la ñuy gën a sawar ba àgg si posé seen yanam si mbedd bi loo si gisul ñëpp am nañ faru rab dara waral ko lu col gu bon maa ngi laatul muumi laatul jigéen ñooñu dañuy topp seen bakkan ba lu leen neex rek ñu def ko te duñ jaamu yàlla yemuñu si loolu sax de waaye foo leen mën a fekk ñu ngi jéem a jéngaloo ak seeni moroom morom ruusul sama tamatin buxtil maa ile jigéen lañuy doon yoo xam ne boo seenee seen kaw bopp yi dafay mel ni jaganu giléem maanaam ku jigéen ka mooy seen xeetu birig ak mees wala gerefaat yu ñuy teg seen bopp yi laa yadxulu jannata wala yajiduna riixa yonent bi sallallahu alayhi sallam nee na jigéen ñooñu duñ dugg àjjana xeetu àjjana sax du leen xeen yàlla si yàlla musal wa rijaalun bi aydihim siyaaqun ka ajnaabil baqri yadribuuna biha nnaas yonent bi sallallahu alayhi sallam teg si na nee na ñaareelu xeet bi ay góor lañuy doon yoo xam ne dañuy yore ay yar si seeni loxo di ko doon nit yoo xam ne gëmuñu ku dul yàlla kon mbokk jullit gëmuñu ku dul yàlla di ko doon nit yoo xam ne gëmuñu ku yàlla kon mbokk jullit lii may déglu rawatina samay mbokk jigéen comme maa ngi dénk sama bopp di leen dénk nañ jagal yàlla te delloo ci xel yi te xam ne àdduna jeex na ba noppi ndax ko ci seetlu gis nga ni yàlla mi moom jaam yi di leen wërsëgal moo kon gis nga ni yàlla mi moom jaam yi di leen wërsëgal moo leen di rey benn par benn moo taxit mag ñaa ngi dem gone yaa ngi dem góor ñaa ngi dem jigéen ñaa ngi dem kullu nafsin zaiqatul mawt moo ko waral kon yàlla nañu yàlla dimbali ba bis bi deenu ñu dikkal mu fekk ñu su la neex yàlla kon maa ngi leen di tàgg foofu ba beneen yoon wa kullu aamin wa antum bi xayrin wasalaamu aleykum wa wa barakaatuhu Subay ñaata

kenn ki di sunu oustaz bi nga xam ne moo ñu jàngal ñu koy xal oustaz Mouhamed Sy rahimahullah njabootam ñu ngi nii toog délégation bu mag bàyyi nañ ci famille bi ñëw ngir yàlla ak bis bi nga xam ne jagleel nañ ko suñu oustaz di ko ci rendre hommage ndax lépp lu nekk ci nun ci xam-xam ak ci yar suñuy wayjur participer nañ ci waaye la mu ca def suñuy wayjur defuñu ko ci loolu la yàlla dogal kon kooku bu la yàlla dogalee ci coobareem nga dem ba am fuñ lay tudd wala ñu jàpp ne ak nga fa soo ameem xel sa xel war naa dem ci moom ñu yàgg koo yéene nag xam naa te ren ji la ko yàlla di door a dogal xam ngeen ne depuis trois ans ngi nii bi fi Covid bi ñëwee léegi cérémonie yi. dañ ko dakkaloon loolu bokk na ci li ko sabab moo tax ren biñ demee dañuy dañuy fàttalikuwaat wala boog dañuy euh, def tari dongo yi suñu xel dem ci moom ñu war ko ci rendre omage keneen ki ci des di sëriñ Moussa saar Moussa Sarr yaakaar naa ne du ku ñuy présenté ci tànt bi ndax suñu diggante ak moom diggante bu xóot la diggante bu sori te dara lalu ko nag lu dul yàlla ak alquran nekkoon jëmm joo xam ne jëf lu baax su fekkee dana jariñ ab jullit gëm naa ne ma nga ca àjjana ndax mbaax rek lañ mës a xam ci moom bëgg diine waaye itam bëgg alquran ak ñooñ alquran ñaar ñooñu dañoo toll ci man foo xam ne bis bii dama ne ñoom lañ koy jagleel ñu sante ko yàlla nag bi ñu xëyee jàng nañ fi ñetti kaamil yoo xam ne ñoom ñoom ñaar ñooñu lañ ko fas yéene jagleel mu bokkoon ci programme bi buñ demee ba am fu ñu toll am na xale boo xam ne xat xat mu bii war a tëj ñetti kaamil yooyu moom lañ koy jox ñëpp nangu ñaan te loolu incha allahu taala ñu jébbale kàddu gi léegi xale bi mu jàng ko ñëpp nangu ñaan waaye ñaareelu tomb bi mooy bis bi dafa am ñu ñu ko jagleel dafa am ñu ñu ko dara jaale ñoo xam ne tam li tax ñu dara jaale leen ko mat naa leeral ndax dañoo yàgg ci maydaan bi dañoo yàgg ci terrain bi te xamee leen ci lu dul liggéeyal alxuraan ak liggéeyal lislaam ak dimbali doomu aadama yi ñu mel noonu nag soo yàggee jaxasoog ñoom nga gis ci ñoom seen pastéef seen yéene ju sell ak seen góorgóorlu ak seen farlu war nga leen présenter doomu aadama yi nga am ba ñoom it ñu mën a roy ci ñoom kon loolu mooy jubluwaay bi ñooñu nag xam ngeen ne monsieur le maire bi nga xam ne mooy maireu Parcelles Assainies di Abdoulaye Diémy Sané yàlla dafa dogaloon sax mu demoon Allemagne bi may mujjee jokkoog moom ma nga woon Allemagne waaye délégation bi ngeen gis nga xam ne euh, sunu mbokk euh, Boubacar Cissé di adjoint au maire soxna Soukeyna Ndiaye di adjointe au maire ànd ak Xaasim Sall mi nga xam ne lu jëm ci mbirum daara ci mairie Parcelles Assainies dégg nga ak alphabétisation moom moo ko yore ak ndeyu daara yi ak naka noonu Ousseynou Gningue ñoom ñoom la wax ne nañu jiitu maire maire balaa yàgg incha allahu taala ñibbisi na agsi na Sénégal waaye nee na li muy xat-xat dana fi agsi bu soobee yàlla ndax loolu rëy na ci moom kon ñoom dañ koo jiitu ngir Euh, taar ko jataay bi waaye ngir tam teeru ko gàttandu ko waaye bokk na ci ñi ñu dara jaale bis bi docteur Cheikh Kanté docteur Cheikh Kanté yaakaar naa ne ñu bari xam nañ ko suñu diggante ak moom damay faral di wax ne gouvernement yi fi jaar yépp yàlla def na ci jamono yi Macky Sall mel ni moom mooy benn ministre boo xam ne sama diggante ak moom fi mu àgg àggu fa kenn loolu moom sa ci moom la moom musuma ko woo téléphone te te te jëlul mus ñu koo diisub soxla it te faju ko lépp lu mu amit ci ay programme daf ñu ciy boole ak yeneen mbir yoo xam ne séq nañ kook moom kon kooku su fekkee foofu la foofu la tawlu sa digganteeg yow sa digganteeg moom dana baax soo amee soo amee lu dul benn bis muy bëcc ci bëccëgu alquran nga présenté ko mbooloo mi waaye xamal leen moom tamit li muy liggéey ci terrain bi loolu moo sabab ñu boole ko ci ñi ñuy tuddee parrain yi ku ne xam na ni Alaaji Ablaye Dia bu Sénico di directeur généralu Sénico yaakaar naa kenn dootu ko présenté ci Sénégal Alaaji Ablaye Dia di kenn ci waa daara waaye di kenn tamit ci ñooñ alquran ba ñu tuddee ko sax far xaadimul quran Ablaye Dia moom itam bokk na ci ñi ñu war a sargal ci bisub tey bii incha allahu taala ngir taxawaayam ak pastéefam ak dogom ak bëggam alxuraan bokk na ci ñi ñu war a sargal sargal itam Serigne Moustapha Lo yaakaar naa ne fédération bi bi muy juddu ñu bari xam nañ ne ci loxoom la juddoo mu wër Sénégal gépp ci 45 départements yi wala ci 46 départements yëpp fu nekk mu samp fa ay kuréel. sëriñ daara yee fexe ba seen kàddu nekk benn loolu moo jur fédération bi ngeen di dégg tey jii kooku nag delloo ko njukkal lu war la jëlale laa nag sama digganteeg moom taxawaay bi nga xam ne ñu bari xam nañ ko sama digganteeg moom waa jàkka ji yaakaar naa ni xam nañ ci dara kooku tamit war nañ koo mën a delloo njukkal keneen ki nga xam ne moo ci moo ci topp mooy suñu ndeyu daara di ajaa Fat Bintu Jéey nga xam ne ndeyu daara yi nekk Parcelles Assainies moom la ñu jiital teg ko ci seen kanam muy def liggéey bu mucc ayib ñu gis ni ñuy sonnee ci daara yi ñoom itamit ñu bëgg leen a delloo njukkal sargal leen ci bëccëgu tey bi ki ci des di suñu xarit suñu wëllëre sëriñ Fallou Ka Fallou Ka yaakaar naa ne ñi ñi ñu xam xam nañ ñu ak moom yàlla def na ñoo jàngandoo ñoog soxna yee ngeen di séen nga xam ne ñoom ñu ci bari ay yaayu daara lañ tey jii ñenn ñi ñu ngi jàngale ay ussa ay asatisaat ay ay ay ustaas yu jigéen lañu ñeneen ñi si des ñu ngi nii ci kaw tribune bi ñu bokkoon ba ñuy tut tànk di jàngandoo ci jenn daara ustaas Mouhamed si doon ñu jàngal alaaji fàllu moomu nag li tax ñu koy delloo njukkal dafa def jëf ju rëy ndax am na ñoo xam ne ci suñu promotionnaire yi ak ñi ñu ancien ak ñi nga xam ne ñun ñoo leen féeti mag ñu ci baree baree bare tey jii retrouvé wu nañu te gannaaw yàlla loolu bu amee mi ngi sababoo ci moom ak pastéefam ba ñu tudde ko ambassadeur tuddee ko coordonnateur kon kooku delloo ko njukkal sargal ko ci kanamu mbooloo mi xamal leen ne itam namu zaj la waaye ku ñu war a présenté dégg nga xale yi lañ ñu xam ni ndekete jëf lu baax am na solo ndax yàlla moom ku mu natta fay du la liggéeyloo te li muy def ci daara ji di ko def ci waa daara ji loolu la loolu lay def ci koñam di ko def ci waa koñam di ko def ci néegu yàlla yi te loolu am nañ ci firnde ñooñu ñëpp nag xam ngeen ne bis bi ñoom lañ ko darajaale ñoom lañ ko jagleel moo tax ma ne leen kon li duf ci xaj li duf ci cin li xajul ci euh, euh, euh, li duf ci nag yi kon xajul ci cin li kon su ko defee dañuy doyloo li nga xam ne moom la ñu bëggoon lu ñu fi jot a jàng ci alquran ñaan gi nga xam ne moom lañ bëgg xale bi ñëw jàng ko ci ñetti kaamil yi nga xam ne wàcceel nañ ko suñu oustaz wàcceel ko Alaaji Moussa Sarr suñu noppee ñii ma wax ñëpp nag ku ci nekk waajalal nañ la as asteranga as laa koy mën a tuddee ndax luñ la jox xeeb nañ ko waaye bu ñu amoon lu ëpp liñ la jox danañ la ko jox danañ la ko jox yàlla xam na ko ndax fi ngeen toll ci nun muy muy sëriñ Moussa Sarr à titre nekkatu fi waaye njabootam a ngi nii toog. am na diplôme d'honneur et de reconnaissance boo xam ne dañ leen koy jox ñu yóbbaale ko ñu koy fàttalikoo incha allah suñu wëlëre boobu yàlla na ko yàlla xare àjjana duñ ko fàtte ba mukk waa ñu ñu dalal suñu ndeyu daara yi ma leen doon tuddal léegi Adja Bintu Dieye ngi noonu di ñëw ànd ak délégation bu mag bi ma leen doon wax léegi Samba Diop waaw dalal leen leen ñu ñu toog nañ jàll si waxoon naa leen ndeyu daara yi bu ñu ñëwee rek na xale yëpp jóg. seen place ñoom ñu jox leen leen sax seen yaay yi ñoom ñoo war a toog seeni place yéen xale yi ngeen dem ca gannaaw aja jóg leen yéen ñëpp xale yi ngeen dem ca gannaaw waaw Adja Bintu mi ma leen doon wax léegi agsi na moo jiitu ndeyu daara commune Parcelles Assainies di def liggéey bu rëy rëy rëy ci biir daara yi di fóotal xale yi di leen jox ay dund di leen xottil ay yére bërki démboo njaay ci 4 avril bi toggal leen ay mbanay cin ay xéewal yu bare bare bare séddale ko ci daara yi moo tax ñu koy sargal moom itamit am na diplôme d'honneur et de reconnaissance waaye am na teraanga duñ ko waajal incha allahu taala bëgg nañ balaa maire maire di yegsi incha allahu taala ñu mën leen a dalal su ko defee délégation Cheikh Kanté itam ñi ngi ñëw léegi ñoom it ñu waajal leen ndax it suñu jigéen Adja. Aïda Diop Gambi ku ne xam na ni bokk na ci ñi nga xam ne ñoo jiita délégation bi ak ñi ak monsieur le ministre ñi mu yabal yaakaar naa ne ñi ngi ci yoon wi balaa yàgg danañu egg si incha allah kon ndeyu daara yaa ngi noonu ngeen dalal leen ñoom laa doon tudd léegi far ñu yegg si kon ajaa ajaa Bintu bi bikum ñi ngi leen di dalal bu baax a baax di leen jaajëfal ci seen taxawaay di leen ñaanal yàlla fay leen seen coono ci njaboot gi. su ko defee kon euh, li may tënkee wax ji rek bu ñu dalalee suñu soxna yu tedd yi door a yegsi Alaaji Omar Seck gis nañ ko agsi na léegi mook délégation di kenn ci fédération bi yore lépp luy partenariat ak relation extérieure kooku nag tey dana am double casquette bu mu fi taxawee ndax suñu bàyyi Moustapha ku ne xam na ne ma nga Touba nee na ma li ma teree ñëw yow xam nga ko tam mooy dama grippe waaye su ma mënoon a raam ñëw damay ñëw waaye nee naa ko nekkuloo fi waaye Alaaji Omar dana la fa nekkal suñu mbokk Serigne Talla Diop ñi ngi koy séentu waaye fii ak muy yegg si teraanga yi nga xam ne fas nañ ko yéene jébbal Alaaji Ablaye Dia bu Sénico ak diplôme d'honneur et de reconnaissance bi nga xam ne moom lañ ko bëgg a jox itam moom it dana ko mën a yóbbaale su ko defee incha allah mu jëlandoo ko ci seen tur ci gàttal daal. lii mooy li nga xam ne bëggoon nañ ko fàttali mbokk yi gannaaw ba ñu santee kilifa yi fi teew yëpp di sant waa unité 12 di sant waa jàkka ji di sant notable yu mag yi nga xam ne ñoom ñoo sanc lii lépp gannaaw yàlla fu liggéey bi àgg ñoom ñii mag ñii ngeen gis ñu toog ci ci tribune bi ñooy ñooy kàngamu jàkka ji am na ci ñoo xam ne wér-a-dig yaram moo leen teree ñëw waaye am na si ñoo xam ne boobu ba léegi ñu ngi toog ak li ñuy mag a mage yàlla yàlla gën a guddal seen fan ñoom tamit danañ leen delloo njukkal danañ leen sant danañ leen gërëm danañ leen ñaanal yàlla di sant suñu soxna yi tedd yi nga xam ne ñoom itamit fa tabaarakallaahu ah li ngeen fi gis ci teraanga yëpp ñoom ñoo ko doon defar ci ay xéewal yal na yàlla fayal ñu leen eh, li ci des bëgg nañu tamit waa wal fajri ñu ngi nii toog ñëw nañu bëgg nañu jël si image yi waaye bëgg nañu lépp loo xam ne lii danañ ko jàllale itam na nekk loo xam ne luy jariñ umma bi lay doon xam naa ne ñoom ay PC la ñuy jël waaye bëgg nañu jàll euh, séquence yi nga xam ne mooy ëpp solo ci liggéey bi ñoom ñu jëlal ñu ko topp su ko defee bu ngeen dee dem incha allahu taala ngeen mën koo segg naka noonu suñu waa teg Tektal TV ñoom it gis ngeen ñëw nañu euh, ñi ngi jël ñi ngi jël image yi ñoom i tamit mu nekk cérémonie solennelle boo xam ne bëgg nañu incha allahu taala mu nekk loo xam ne luy am taarix lay doon di sant bu baax di gërëm bu baax a baax suñu. soxna yu tedd yi nga xam ne ñooy soxna yi waa masjid baabu salaam waaye di gërëm itam waa masjidu Bilal ibnu Rabah laa bëgg a wax waaye di gërëm itam suñu jeunesse yi nga xam ne ñooy jeunes yi nekk ci jàkka ji ci njiital seen président euh, Pape Boli ak ñi mu àndal liggéey bi yëpp ci wàllu organisation bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm tey ñaan yàlla mi am fay yàlla na yàlla fayal ñu leen euh, su ko defee Sidi Barham loolu laa bëggoon a ubbee jébal la kàddu gi ñu jox xale bi nga xam ne mooy jàng ñaan gi nga xam ne ñetti kaamil yi ñuy wàcceel suñu ustaaz suñu sëriñ alxaaji Mouhamad si yàlla na ko yàlla dolli yërmande yàlla na ko yàlla defal ak njégal ak sëriñ Moussa Sarr ñu yéene waale ci nag képp koo xam ne kii ab jullit la bu newoon ci quartier bi ak yi nekkoon ci biti quartier bi yëpp yàlla yërëm leen te jéggal leen ñoom ñëpp dañ leen ci fasaale incha allahu taala suñu noppee nag ñu def cérémonie symbolique boo xam ne ci la ñuy remettre yenn diplôme buñ noppee nag kàddu yi nga xam ne moo ci war a topp incha allahu taala ñu mën cee jublu ci nu ma gën a gaawee bu soobee yàlla beneen bi nga xam ne moom la ñu bëgg a tëjee nag suñu mbokk suñu xarit sëriñ Moustapha Ndioub di professeur bu woo xam ne bu ñu xam bu ñu xam la yàlla def ñu doon jàngandoo ci jenn daara mu dem Soudan ñëw indi lijaasa yu kawe yàlla may ko itam xam-xam bu sell boo xam ne mi ngi koy laabire sénégalais yu bari di jariñu ci moom bëgg nañu exposé bi muy def itam ñëpp déglu ko ci wàllu xuququl euh, awlaat muy mooy droit yi nga xam ne moom la xale wala am dana ko tënk insha allahu taala ba lislaam naka la waajale yar bi nga xam ne moom la ñu war a yar njaboot gi insha allahu taala dana ko dikk moom itamit bu ñu joxee cadeau yi ba noppi ñu ñëpp ñu ngi sàkku ngeen may ko nopp dana ci tënk ay baat yu gàtt xam nañ ne wérul waaye gis ngeen ko li muy wéré di wéré di teewul dafa ne bis bi moom kenn du ko ko nettali waaye ñun xamoon nañ ne sax amoon na ngànt kon sañ sëñ Moustapha ñu ngi lay sant di la gërëm tey ñaan yàlla yokk wér gi bu baax a baax te yaatal dënn bi ba lépp loo fi sotti rek julli ñi mën koo jëriñoo incha allah kon Sidi Barham ma jébbal la kàddu gi su ko defee programme bi nga mën koo eggale incha allah billahi min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki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 اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المسلات وكفر بتلاوتي عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من شهو أو نسيان aw tahrifin aw taqdimin aw taqirin aw ziyatin aw nuqsaan aw tawilin ala gayri ma anzaltahu aw taadilin inda tilawati aw kasrin aw zayin lisan aw wuqufin bi gayri waqfin aw idgamin bi gayri mudgamin aw idharin bi gayri bayan فاكتبه منا على التمان والكمان والمهذب من كل الأرحام وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمام ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبل ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران وأمن كتابنا ويسر حسابنا وسقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم بلغ صواب ما قرأنا اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح شيخنا ومربينا وأستاذنا الحاج محمد سي لروح شيخنا وحبيبنا حبيب القرآن وأهله الحاج مساسات allahumma balligh sawaaba maa qara'naahu wa nuura maa talawnaahu li ruuxi sheykhina wa murabbiyana wa ustaazuna alxaaji muhammad si li ruuxi waalidina wa xabibina xabibi alquran wa ahlihi alxaaji musa saar allahumma balligh sawaaba maa qara'naahu wa nuura maa talawnaahu li ruuxi sayidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam wa li arwaaxi aabaa'ina wa ummahaatina wa mashaayixina wa li arwaaxi jamici almuslimina walsalaatu walsalaamu ala sayidina wa maulana muhammadin xaatimi nabiyina wa imaami almursalin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursalina walhamdulilahi rabbil alamin